da nga ci a saf sàpp loo bëgg wax foofu. xam nga lu jot yomb euh, damaa toog observer ku ne puus ma ne ma defal lii defal lii ma ne leen tey am naa li ma metti ci ko Sénégal. Mhm. est-ce que xam nga ni tey toll nañu ci politique fi nga xamante ni sa mbokk boo leen bokkul sax ngir des intérêts centraux dangay ragal bu amee dëj saa ne ko maa ngi lay jaale man loolu ragal naa ko tiit naa ko mhm. tey observé naa ko. tey débat bi waroon na tourner sur les actions du chef de l'État est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas mhm. mais lépp mu ngi ci diggante procès diggante yeneen ak yeneen ak yeneen alors que tey waroon nañu commencer saytu suñu pétrole fu mu jëm ndaw yi len lañ ci nar a am tey waroon nañu waxtaan ci perspective nan la ñuy rawee Dubaï wala Qatar mhm. parce que peut-être amaana ñoom bu ñuy découvrir seen pétrole technologie bi fi am tey pour construire des infrastructures pour gagner en liberté économique. merci amuñu ko woon tey pour man politique foofu la war a toll fu ñu toll nii nag ci artu laa toll waaye man it sës naa de. engagement baa ngi ñëw. enga ñëw na ba pare fu mu nekk nii organisation moo des. jërëjëf man kay may naa la ba fan yii.